di jiital sunu nuyoo ak sunuy kàddu Serigne Cheikh Mbacke moom sëriñ Saliou ak rakkam ak njabootu sëriñ Saliou gépp di ñaanal sëriñ Cheikh mu yàgg fi te ànd ak wér ba àggal naa li Serigne Saliou yépp euh, àggalub liggéeyam te yóbbu ko fu kawe njort ci zaahir ak ci baatin ci barkeb Serigne Saliou yàlla na ko sunu borom defal wér yàlla na wér ni aw doj yàlla na fi yàgg ñoo ngi koy ñaanal bu baax te di ko sant eh, ci taxawaayam ni mu sagale way juram wi ak ni mu saba sagalee njabootu Serigne Saliou gépp rawatina nun taalibe yi eh, mbokki taalibe yi nga xam ne nag li fi xew bërki démb jaaxal na leen Euh, jaaxalu leen sax ndax am njort bu ñaaw ci sëriñ bi ndax ñoom day xam nañu ne sunu sang bi day moom dafa dëppoo ak ndigal ci zaahir ak ci baatin di koo xam ne euh, ku sunniyu la lépp lu muy def rekk ci sunna la koy teg euh, yoonu sëriñ Tuubaa itam koojul doxin wi ci benn boor sëriñ Cheikh lépp lu muy def rekk danga ca gis ni euh, lii dëppale na ko bu wér ak ndigalu sëriñ bi ñaare sax ay waxam euh, doo ci dégg waxin woo xam ne dana mel ni lii ci xelam la bàyyikoo walla gis-gisam la euh, dana la indil aaya alquran mbaa mu indil la addis bu wér maa mbaa mu indil la lenn ci mbindum sëriñ bi door caa teg lam la bëgg a wax nga xam ne kon moom doxewul coobareem doxewul bakkanam moom daal ci ndigal rekk la nekk euh, rawatina nag digganteem ak taalibe yi ni muy doxee ak ñoom mooy kat sëñ tubaa dafa baaxowul di tëju ab taalibe mbaa ku koy tuddoo ka gënoon a bon sax te du taalibe daana mën a gis sëriñ bi te euh, yéen ñépp ngeen ay murit dégg ngeen kooku daa ñëw ci kër sëriñ bi ci njaareem te sëñ bi tuddee woon ko góor mag eh, waaye daana gisee ak moom léeg-léeg sax daana àgg ci di xuloog sëriñ bi ndax naqaral bi ko sëriñ bi naqaral ci jubbanti gi muy jubbanti jaam yi ak delloo gi mu leen di delloo ci seen borom ak ñi muy àggale ci seen boroom moo tax lu ci bari daana ñëw ci sëriñ bi naa ko sama liggéey bépp yàq nga ko loolu nag ku mën a jàmmaarloog iblis jàkkaarloo ak moom di wax mënuloo bañ a gis mbindéef ndax ku iblis mënta yàqal dara mbindéef du la mën a yàqal dara loolu moo tax euh, Serigne Cheikh ndaw soosu ngeen ci déggoon ne dem na ci moom euh, daj na fa coono sax laata moo gis sëriñ bi ndax it taalibe yi ak njaboot gi seen xol lan yor te buñ sañoon it du ku jóg rekk mën a àgg ci moom euh, te loolu ñoom sañ nañ ko bu baax a baax seen cër may na leen ko waaye nag euh, bi sëriñ bi déggee xibaar bi moom moo leen wax ne leen fii kër sëriñ Touba la kër sëriñ Saaliwu la doon fi tëju kenn wax leen leen nañu ñëw bi ñu ñëwee nag mu dalal leen ni ñuy dalale taalube ni ñuy dalale doom ndax yërmande ji mu am ci ñoom xoolul seen jëmm xoolul it seen pas-pas ka ñu doon tuddoo ne mooy seen kilifa ñii mu doonoon seen boroom kër ñoom la xool ci ñoom te kooka bokk ci njabootuk Serigne Saliou te muy Cheikh Béthio Thioune euh, waaye nag seen waxin euh, dafa dëppoowul ak waxinu taalibe ndax ba ñu ñëwee wax ba àggal te yenti yett yi xam ngeen ne matul kilifa wax nañu ne bàmmeel matul sëriñ matul ilimaan matul borom kër kon ñoom sëriñ bi digal na leen li ñuy digal taalibe yi tere na leen it li ñuy tere taalibe yi waaye ni mu ko defee mooy ki ñu war a digal jëkk muy doon ab taalibe mooy kooku kat dañ koy diggal mu jébbalu bu dee yitteem la waaye loola it sëriñ bi xamal na leen ne defuñu ko ci ñoom ñoom jébbaluwuñ ci moom ba mu sañ leen a digal sañ leen tere kon ñi mu jàkkaarlooloon di wax ak ñoom duñu ay taalubeem la mu mën nag mooy laa biire leen ndax ñàkk a doon ay taalubeem it te teewut xëy nañu jàpp ne ñoom ba tey ay murit lañu kon kilifteef googu day daal di aju ci xalif général des mourides mu xamal leen nag ni leen moom ab taalube murit la te fitam mayu ko muy ànd wala muy jaxasoo o ak koo xam ni am na lu ko boroom tubaa cheikh muntaqaa digal te defu ko mbaa lu ko boroom tubaa cheikh muntaqaa tere te bàyyiwu ko loolu moo tax sëriñ bi xamal leen nag ni leen bu ngeen jébbalu woon ñu sañ leen a digal sañ leen a tere waaye loolu defu leen ko euh, jigéen ji nag euh, dagg gi muy dagg kàdduy sëriñ bi ak wax yi muy wax ak toogin week ñàkk taalube gi loolu duñ ci détaillé ndax nit ñi sëriñ bi rek moo leen ñor la ca toppit mooy mu xamal leen kon ne yéen dama leen di laabiire rek mooy dajale góor ñi ak jigéen ñi fi barab ci jëmmi te te sëñ tax loolu bàyyi leen ko lu mat bàyyi la euh, jigéen ji ci boppam it mu digal ko mu simmi mbubbu sëriñ bii muy jéem a sol ndax jigéen baaxoowul di jiite ci lislaam indil ko it aayab alquran bu firnde ay kàddoom mooy boo demee ci suuratu nisaay aaya fanweer ak ñeent الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض ba aaya ba jeex ma nga jeexee inna allaha kaana aliyan kabiran xamal ko ne ko góor ñi kat sunu borom moo def ñuy kilifa jigéen ñi ñoom ñoo wara jiitu jigéen ñi topp ci seen ginnaaw ndax yàlla teraanga ji mu teral jigéen àgg na sax ci góor ñi alal yi nga xam ne itam ñoo ngi koy jël di ko jox jigéen ñi ñuy jëfandikoo num leen soobee ak it euh, lu ñu amit wala balaa ñoo jot ci jigéen yooyu yëpp nga xam ne dañ ciy sonn daj ci ay coono def ci seen alal euh, buñ ci jotee nag kon sunu boroom it euh, jël kàddu ak njiit def ko ci góor ñi jigéen ñi topp ci seen ginnaaw di wéyee seen ndigal lii ci tënk moom la ko sëriñ bi xamal digal ko ko euh, sëriñ Cheikh Mbàkke nag moom du def kuy ñàkk kersa du boddi doomu aadama du ko toroxal du ko gàcceel waaye daal du mën a ñàkk dëppoo ak ndigalu sëriñ Touba Cheikh Mouhamadou Mountakha du mën a ñàkkit képp ku dikk fi moom mu laabiire la la nga xam ne moom la ñuy laabiire ab taalube tere la la nga xam ne moom la ñuy tere ab taalube ngir nga mën a jëlee ci jataayam yiw ak ndimbalul zaahir ak baatin waaye nag nit ñi li sëñ Muntaxa wax rek kenn ku nekk dangaa am liberté nag léegi sañ a tànn boo defee loo xam ne sariyaat la cee war a rey Euh, doxalinu àddina mayeetul ñu jëfe loolu boo defee loo xam ne itam yoonu murit nanguwuñu ko lañu sañ rek mooy tere la alali sëñ Tuubaa tere la njabootuk sëriñ bi wax la ne la lii ak lii ak lii dëppawul ak yoon wi waaye nag duñ teg kenn yaru yoon euh, kon nag taalibe yi nga xam ne ñoom ñooy bootu ci ginnaaw ñu ñu warta bootu ak ñàkk a xam yóbbee leen ko ak ñàkk a ràññee euh, laabiire yi dana tax xëy na ñu yeewu ci mbir yu demee noonu ba mën a xam fa ñuy teg seen tànk ndax nag képp koo xamante ni yaa ngi tuddoo sëriñ saaliwu sëriñ Cheikh Mbàkke mooy sa kilifa fii ñu toll ak ci koo mën a jokk ci biir njaboot gi ak koo ci mën a yaakaar ak koo ci mën a àndal waaye daal loola it mooy tax lépp looy def nga dëppale ko ak sareetul islaam dëppale ko ak sunna su rafet loolu dana si yombal sa ànd ak Serigne Cheikh ndax du ku ñuy soppi du ku ñuy jubbanti du ku ñuy joyanti ma nga ci digg yoon way dox ku bëgg a ànd ak moom dangay xool na muy doxe nga topp ca bokk na nag ci ay kàddoom ci tënk ci lépp mooy lépp loo xam ne ci yoon wi gisuma sëriñ wu def ko gisuma mu digle ko duma ko def duma ko digle duma ci ànd ak kenn ak cant nee na bu sunni yoo buñ ko sellalee bokk na ci jaamu yàlla yi féete kaw sellal ga nag mooy jàng alquran jàng xasaay di sëñ tubaa yi bernde xëy na ay murit moom di taalif ci sëriñ Touba ak di ko woy mënee koo tere kenn waaye tëgg moom bokku ci itamit mbooloo yi nga xam ne dañoo nekk ci biir kër sëñ saaliw bun dee tànn ay jëwrin nañu jiital ay góor jigéen ña topp ca kon képp koo xam ne wax ji dégg nga ko ba mu leer ci yow bu baax boo amee ay jëwrin yu jigéen ci sa biir mbooloo nanga leen soppi te def jëwriñ yi góor ñi na góor ñi jiitu jigéen ñi topp ci seen ginnaaw bu dee kuréelu jigéen kese itam nag loolu ci seen biir nga xam ne euh, dañuy dañuy dañuy def lu mel ni ay daayira maam jaaraak yooyu xëy na loolu jigéen mën naa nekk ci seen kanam te bu boobaay it liggéey ba góor lañ koy jébbal waaye jigéen ci kanam mbooloo moo xam ne ay góor laa ak jigéen moom tegewul ci yoon du lislaam te du yoonu murit te Serigne Cheikh Mbacke du ko nangu tey du ko nangu ëllëg loolu nag noo ngi koy wax ci eh, mbooloo mi ñëpp déggandoo ko xam ne yëf yi nii rek la demee waaye nag mbiri kilifa kenn du ko jàpp di ko détaillé di ko détaillé di ko détaillé ba mu jeex tàkk waaye daal yaa li ma mën a wax daal te mu wér te wóor mooy doxinu sëriñ Saliou mooy la mu waxoon ne lu dul lislaam du liggéeyal sëriñ Touba awma ci defar awma ci yàq sama yoon nekku ci doonuma ca dara lislaam nag am na nu ko sunu borom tëralee ci diggante farata ak sunna liggéeyal sëriñ Touba itam yoon wi boroomam daa nekk koo xam ne boroomum xalima la li mu bind dafa leer naññ ak njabootam aw ca awin wu leer naññ rawatina nag sunu sang bu tedd bii di sëriñ Cheikh Mbacke. kon képp ku wàcc yoon yow la neex yi loolu yaa ko tànnal sa bopp képp ku bëgg a dem nag dangay topp koo xam ne ca yoon wam jëm dana xam fa mu jëm dana am kilifa gu ko yóbbu ba mu àgg fa mu jëm te bu àggee dana fa fekk la ko neex lii daal moom lañ leen doon wax ci gàttal euh, ci ay leeral ci mbir yooyu asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu jërë ngeen jëf yéen ñëpp góor ak jigéen ngeen jot suñu vidéo nag foo leen toll si biir réew mi wala si biti réew da ngeen ngeen mën a jot moo leen vidéo boo xam ne a xam